fii gisuma ko foofu euh, donc vraiment bo bokkul sax. et puis am solo terrorisme. et puis et puis et puis et puis quand même ñun terrorisme. quand euh, même yàlla ñu ciy sutural mm. alors que feneen am na fa mm. te yooyu xeetu violence yi gën a bon la defe na mm-hmm. euh, di ko waral nag c'est parce que quelque part am na lu fi ne mm. loo xam ne mu baax mu bon ñu ngi ci jàpp di doxal te je pense que bu bonoon bu bonoon euh, Sénégal yàlla du ko appelé waaw mooy par rapport à Papis Diaw s'il te plaît waaw man du question même <coughs> am benn côté boo xamante ne lu mu bëgg rek si loolu lay lay dem quoi dama dama déglu benn benn psychologue euh, bu doon ñëwaat di commenter sur un grand criminel boo xam dafa rey jabaram doomam rey yaayam rey papam euh, muy expliquer c'est dafay dafay concorde ak li li li professeur di wax parce que si mooy démission parents yi man foofu lu mu tax ma convoqué illustration euh, bi dafa expliquer scientifiquement que li koy indi mooy xale bu nekkee xale lépp dañ koy dañ koy lu mu dañ koy jàngal lu mu man-man li mu bëgg dañ koy defal Euh, lu mu xalaat dañ ko si bàyyi genre daf ko benn genre ñu koy waxatee nga nga choyé ko ba mu ëpp ba nga xamante ne moom day bëgg di exprimer li muy bëgg loolu lay créer euh, cette histoire là en fait en fait psychologue noonu la ko expliquer c'est-à-dire que daf koy màggaale dem ba am suffisance dool boppam am rupture ak autorité bi pour moom papa ma yaayam mi ñu koy après amul sens parce que il est même plus important que ses ses loolu mooy débouché euh, très souvent si yooyu moo tax ma ne ñun à notre niveau en tant que pays africain en tant que sénégalais par rapport à nos cultures ñun je pense que le soubassement le départ de la résolution du problème c'est de revoir l'éducation pour moi fondamentalement ensuite on doit associer les forces la police euh, l'encadrement et tout mais la base c'est le soubassement doit être changé très le pour, pour le professeur ak le commissaire euh, léegi mooy yooyu bu ñu jëlee deuxième suñu ndaw yi dañu génn je sais pas combien de centaines de milliers si c'était des centaines de milliers hmm. génn pour dem accueillir lions yi man analyse bu mu fi defoon euh, du mu ko fi wax mais yéen ban analyse ngeen si defoon quand les centaines de milliers de lions sont allés chercher de gens qui n'étaient pas des champions est-ce que vous l'avez analysé dañ ma mës a question ni ma lu tax euh, xale yi bu ñu defee compétition comme nawetaan yi bu ñu leen gañee ñuy génn di sànni xeer di xeex ma ne mën ku ku ñàkk ba pare kontaan baaxul ku ñàkk ba pare kontaan baaxul euh, ki ñàkk dafa war a mer mais après mer bi nag ban attitude la war a am donc il faut mu nit ki euh, di xaw a aussi am euh, attitude ni man mer naa lii neexuma mais émotion bu bu bu ëpp yenn saay du baax li ma gëm bu fekkee ni ci sport bi lañ ko delloo moom mooy que quelque part culture de la gagne il faut ñu def ko ci suñu suñu bopp hmm. parce que mënoo kontaan mënoo mënoo mënoo ñàkk. Mhm. te waroon a gagné. Mhm. parce que amoon nga toutes les conditions étaient réunies pour nga gagné. quelque part aussi il faut ñu inculquer suñu ay jeunes la culture de la guerre. mais est-ce que c'était pas une expression d'une violence. moom laa lay wax c'est que dina dina dina xam nga sànq bi ma la waxee ne. Euh, bu ñuy def ay combat de bu amoon bu amuloon euh, bu euh, amuloon ci dëkk bi. il faut làmb. Hmm. bu amuloon ci dëkk bi boxe. Hmm. ak ay arts martiaux et cetera. dina waa ak football bi dafay graaw trop. parce que dafay am li nga xam ne dañ koy intérioriser. loolu la ñuy wax catharsis. Hmm. gis nga buuba waxuma la buuba bi de. mais mën na nekk opium mën na nekk opium aussi. <laughs> nee na mën na nekk opium. mooy mën na nekk opium bu fekkee ne dañ ci manipuler nit ñi. Mhm. bu fekkee dañ ci manipuler nit ñi. su fekkee ne loolu mooy su fekkee ne euh, par exemple bu si on reste sur ci jeunesse bi euh, su fekkee ne xamoo noo koy def. su fekkee ne bari na. su fekkee ne ñoo ngi wut seen bopp ñoo ngi chercher seen bopp ñoo ngi nekk ci quête de sens. Mhm. waxuma la sax ay wut liggéey yooyu. Mhm. waaye nekk ci quête de sens parce que fi erreur bi ñuy def souvent ci approche mooy dañoo jàpp ne jeunes mais am na leneen lu ñu soxla xëy na ba ñu amee emploi ba pare donc bu fekkee ne euh, instrument yooyu noonu muy sport bi muy yeneen dañ koy utiliser aussi pour pour pour pour régler ci ay problèmes peut-être que dañ koy déplacer manipulation la voilà. est-ce qu'il n'y avait pas un transfert ah, manipulation mais alors bon, c'est nan lañ koy utiliser comme instrument de socialisation voilà. instrument de socialisation euh, sport euh, beneen kii bu mu mënti doon nan nañ koy utiliser comme instrument de socialisation loo xam ne dafay bokk ci defar jikko nit ji nga perte xam nooy perte nga gagné xam nooy gagné nga match nul xam nooy match nul mais est-ce que est-ce que tey ji socialisation bi warul woon a nekk tey benn liggéey boo xam dafay am en amont am pendant ak après ñoo xamante ni xëy na lig seen liggéey loolu lay nekk la gestion par exemple de la défaite mm-hmm. yaa ngi dégg est-ce que ñu ay canaux yu leer yoo xamante ak ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo war a gérer loolu mm-hmm. et qu'on évalue aussi mm-hmm. absolument ah. alors euh, pour terminer boo wax ci loolu waaye ah, mais kii que professeur bi li mu ci tontu mais mais li ma ci mën rek euh, Charles mooy mm. euh, il faut refuser d'être bon quand on peut être excellent ay ayca euh, euh, dernière question ñoom ñaar bu dee xëy na yéen bëgg ngeen ci wax mooy les enfants de la rue ci lañ waroon bokk mais waxtu wee ñu tënk taalibe compris de léeg-léeg gis nañ ni ñoom it ci ñi malheureusement ñàkk seen bakkan ak ñu ñuy mettital la ñuy doon est-ce que le retrait pur et simple n'est la solution aussi pour ñoom et boobu état moo ciy taxaw xaw ma camp lay ubbi xaw ma centre lay doon képp kuñ ci jël yóbbu jàpp foofu ba ñu mën retrouver say parents et puis que les parents aussi yi bàyyi noonu livrer à eux-mêmes leurs enfants à sanctionner waaw xam nga. Euh, commissaire oui euh, moom mu jël. waaw commissaire comme maa ko mag te moom grave. <laughs> waaw léegi dama la wax ni la. problème mu enfant de la rue. Hmm. mi ngi tàmbale bu fekkee ni mën nañ koo date dans les années 70 avec les daara itinérants ñu nga xam ne dañu doon déplacé wu ci dëkk dem ci beneen dëkk yóbbaale xale yi léegi à partir de ce moment amatul contrôle communautaire surveillance communautaire bi amatul ko ci sëriñ daara bi ñenn ñi mënoon ñu jël xale yi jamono jooju di leen yalwaan xale yi boo doon gis ci mbedd bi dañ fay nekk pour benn instant rek nga leen di seen après ñu ñëwaat parce que añ lañ doon yalwaan wala yu demee noonu après mujj gi nag affaire bi nekk benn genre commerce. nekk loo xam ne euh, ñun def nañ ci benn étude laaj xale yi ñu fekk ci mbedd bi ñuy yalwaan. Mm. ñu laaj leen lan ngeen bëgg a nekk. benn xale tontu woo ñu ci ni bëgg naa nekk comme sama sëriñ. ñi ci ëpp 98 pour cent li ñu tontu mooy apprenti car rapide la ñu bëgg a nekk. Oh. parce que xam lan moo tax que apprenti car rapide moo yore xaalis pièces yooyu mu yore ñoom moom la ñu gis foofu la seen foofu la seen univers yam. alors donc je parce que ci dafa am ñoo xam ne dañ leen di sas te ñu war a ñëw. Mm-hmm. indi indi si affaire boobu. versement quoi versement boobu. par jour. vendredi ñu doubler wala ñu tripler versement bi parce que vendredi moo gën a dox. alors léegi nag li ma bëgg a wax foofu mooy. am na ku ko fi wax sànq xaw ma kan la mooy ñun suñu suñu passivité ak suñu responsabilité. parce que ñun ñooy sarax xale yooyu aussi. Mm-hmm. Aminata Sow Fall bi muy bind la grève des battu loolu la doon wax nee na bis bu taalibe yi toogoon grève grève des battu seen battu yooyu ñuy jël di ñaan bu ñu ko téewoon grève nee na population bi am problème. ils l'ont même fait. <laughs> dans le sarax bi moo la koy kii. voilà c'est ça comme ça da ngeen di jànkonteel yéen nag. mais évidemment mais mais man jàpp naa ne question bi pour régler ko. il faut une vision holistique. Hmm. parce que c'est un problème global. il y a beaucoup de goulot d'étranglement. du décision at ne rek muy ñëw ñu décider légiférer là-dessus te da amul une concertation au niveau national. Hmm. parce que bëri na ay goulot d'étranglement qu'on le ou non. Euh, li ma ci gis mooy état sax amoon na déjà des ébauches de solutions yu ci amoon. Mhm. parce que am na un projet de décret ou de loi sur le statut des daara au Sénégal je pense que c'était en 2002 ou en 2010 euh, la même réalité juridique amoon na également par rapport ak les talibés carrément. Mhm. mais a chaque fois gis ngeen ne. Euh, euh, mbir la moo xam ne yëkkati ko. mu sotti yombul. Mhm. moo tax nag il foog mu laaj ñëpp nag béy ci seen laaj. parce que il faut ñu mettre l'intérêt de l'enfant au devant de la scène ñi ko war a comprendre dépp comprendre ko moo xam chef religieux yi la moo xam euh, borom daara yi la moo xam pere de famille yi la. moo xam moo xam moo xam ñoom ñëpp ñu xam ne. mais commissaire doguma la mais amuloo impression que par exemple euh, discours bii nga def nii que depuis dix ans ñu ngi koy wax. plus de dix ans en de non dama bëgg a wax que ni fait lii nii dañ koy wax. booba li muy wane mooy yombul. waaw mais non mais yombul non dama ne. yombul mais mais non dëgg ma ne en fait yombul mais bu doon y a dix ans dañ doon wax. que ni léegi ñi ci des war nañ leen fi génne ñu ne au moins am na benn part dafa mu defe naa discours bi benn moment il faut même qu'on qu'on aille beaucoup plus loin quoi xam nga loolu bëggoon euh, mënuñu ne rek la affaire bi dafa c'est c'est vrai compliqué mais man bi ma xamee xam xamee ba léegi ñuy wax c'est compliqué mais nag mais nag am na organisation bu énorme bu am ci biir euh, gis naa ay privé yoo xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib. ci biir ci biir ci biir. am na ñoo xam ne ñu ngi récupérer xale yooyu. oui mais c'est c'est rien par ay centre mais c'est rien par rapport que. au moins parce que boo génnee fii rek yaa ngi yem. oui am na am na des enfants qui sont sauvés man gis naa ci ñoo xam ne dem nañu ba léegi ñu ngi jàng dem nañu ba léegi nekk ay ay ay. ma ngi jëm euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. man man question ma lay laaj mooy bi ñu fi bi ñu fi jëlee euh, décision ne dañ leen di retirer est-ce que yéen impliqué woon nañ leen ci processus boobu impliqué nañu nañu naturellement parce que ñun euh, on est des exécutants. yéen ban responsabilité ngeen am. lan moo ci nekkoon seen niveau de responsabilité. non à part ñu bett dans les ci benn niveau de responsabilité. c'est des décisions. c'est des instructions qu'on exécutait oui, sur le léegi nag léegi aussi am na beneen question boo xamante ni kii posé na ko par rapport ak trafic mm. international bi parce que porosité frontière yi aussi mm. dafa nekk mm. loo xamante ni ci bari dañuy wax ne. Hmm. jóge wuñu fii. Hmm. jóge dañuy leen di jële feneen indi leen fii wala sëriñ daara bi bu ñu defee prolongement hmm. souvent on trouve hmm. quelqu'un boo xamante ni qui vient d'un pays voisin en des enfants de la rue selon Human Rights Watch venaient des pays limitrophes voilà alors commissaire tàggool jeex na <laughs> sama patron na ma naa arrêté Pierre Da Silva li ngay bañ nee bu may wax turam <laughs> mais fi Selek Caajaay moom amul enfant de la rue euh, gisuma ko <laughs> ñu tàggoo ñu tàggoo di di kontaan vraiment ci ci émission bi ak surtout pertinence su idées yi ñu fi développé yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu Malal également ak Birima bi nga xam ne fekk ma ne. les absents les absents voilà merci. Birima mi ngi Saint-Louis Malal Malal man. Allemagne la fi daal non non non. non non non bàyyi non non bàyyi non non non non non non donc chaque liñ liñ. la dem. Ah. bu ñëwee di def jàkkaarloo. mais coronavirus la exactement. papis Chine la bu dee Chine la dem moom bu ñëwee. man France man woo ma ne maa ngi dem Allemagne. demul Fouta léegi nag fan la dem. mooy Fouta la dem Fouta. Euh, on le met en quarantaine. bu dee Chine nga dem moom doo fi dellu si. alors professeur ñu ngi lay gërëm di la sant. <laughs> waaw euh, jërëjëf maa ngi rafetlu bu baax a baax sama participation fii li ñaan yàlla rek yàlla def jàmm def sécurité parce que comme ni ma ko waxee sànq rek moom sécurité bu fekkee ni dafa manqué léppay sooxe. koom-koom boroom bitig yi 19h ñu tëj seen boutique. ñi jigéen ñi nga xam ne dañu euh, am njàmbaarte ba dee 4 heures du matin ñi ngi ci tali bi yore seen dàmba di dem di wuti jën duñ ko ñeme. jaamu yàlla doo ko mën a def. gée doo ko professeur léegi gars yi ils attaquent le jour ah. oui oui moom donc ah, loolu dafay ñëw gën a aggraver ah, la ah, situation moo tax kon ñu war a gën a góorgóorlu. Mm-hmm. vraiment euh, gën a jàpp suñu sécurité euh, gën a lënkaloog. force de sécurité et de défense. jëf ni ñoom pour ñun la ñuy liggéeyee. ñun tamit ñu nekk di liggéey ak ñoom mu nekk en parfait intelligence je crois que loolu buñ ci taxawee. mën nañu def ay jéego yu am solo ci biirum sécurité. ñu félicité ko moom tamit. Euh, ndax ni ñuy wax euh, bu ñu defee seen liggéey ñu rafetlu ko. Mhm. ni mu gérer problème bi amoon mbuur mhm. te yàlla mujj def jàmm alors que c'était très grave mais moom mii moo ko géré ba finalement euh, mun nañ ni yàlla yàlla def na ci sutura mm. te munoon na demee neneen ndax ay gànnaay lañ yore yoon euh, am nu mu demee géré na ko ñu ko ci. c'est un bon euh, commissaire quoi c'est un bon commissaire c'est il est aussi. donc ñu seedeel ko ko vraiment merci beaucoup. merci beaucoup deuxième partie.